appreciate it. Thank you. Thank you. No problem. Okay, okay, okay. Okay. Okay. Ladies and gentlemen, if you give the lawyer a little space, I'm going to use this megaphone. Oh guys, guys. waa léegi. di ngeen ñu may ñu filmé waa ji ngeen dégg them. muy wax ah. waaw yéen ñi dul filmé dal leen dal leen waa déglu leen déglu leen. waaw ziar nañu. yéen ñi filmé wul déglu nga lu ma la jege ko jege ko amul benn njariñ waa ji day tiit di ko amul benn njariñ léegi léegi donc association sénégalais Gambie ñoom ñoo ko engagé ñoo ko jël. maa ngi leen di dem jaaxal yi. moom mi ngi ci pour commencer défendre Bassam. mais nag tey donc euh, daanaka dara xewul dara. dëgg la dëgg la. até não consigo apresentar com curiosidade ainda. sabe que botou. Dona Amor é de grande, né? Não né? sabe do

just the people get by. Uh -huh. Yeah, people by. Okay. All right, it's good. You them. Thank you. No, give us give us more, ten more minutes. We, we no, no, no, no, no. Five minutes. Five minutes. Listen Five minutes. I'm you listening. I'm listening. I'm listening. I've been very nice. Okay. Okay. I'm asking. Very nice. I'm asking a favor. We so, make sure. I mean, we're asking a favor. So right now, I've been doing a favor. I got to make sure it's clear. Yeah, that's what I'm saying. I said five minutes. I'm more than understanding. Yeah, right? definitely. We appreciate it. We appreciate it. Right? We appreciate it. We appreciate it. You know, you're, you're in your right. We're grateful. We're grateful about everything you're doing. Yeah, thank you. We appreciate it. Thank you. Le 21 août, guy. Le 21 août. ñun ñu defaat ne dañoo war a quadruple li ñu def nii. loolu mooy gars yi gars yi seen xel di dem dem xam ne dañoo war a taxaw ba tribunal bu ñëwee dañu ñu bëri kenn ku ko. kañ le 21 août. le 21 août. Anta Diaw. wen wen wen. le 21 août bii gars yi ba nine o'clock nañ fi fekk ak tasaaroo léegi tasaaroo tasaaroo tasaaroo tasaaroo. na ñëpp dem. le 21 août. le 21 août na ñëpp ñëwaat. le 21 août 9 ñëpp ñëwaat fi. voilà le 21 août. voilà ñu ne nag na ngeen tas. tas leen tas leen tas leen voilà. le 21 août incha dañ koy may opportunité pour mu wax li nga xam ne moom moo xew. voilà le 21 août voilà. le 21 août let's go let's go guys. ayca nañ leen def ah dañuy

nañu dem nañu dem one second please one second of one second one second it's gonna last exactly one minute one minute that's it that's it ok I'm Well, okay. Well, okay, guys. Well, if you get out here. All right. Okay, okay. Oh, you better.

ok maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar donc tey ñu gi nii ci court house bi sunu mbok sénégalais bi nga xam ne ñu ngi ko tuumaal affaire viol ah dara wóoruñu ci nag mais ñu ngi nii tey ci court house bi di xaar résultat yi ci weewu bay dégg naa reporté waat nañ ko gaa yaa ngi nii. daa am na xam-xam nag daa mel ni te renvoyé oh, ah? am nga xam-xam quoi waxan nga ko avant quoi. waaw gis nga de man dama xam ñi seen affaire moo tax. seen dara seen dara yomb. <laughs> renvoyé nañ ko ba la kañ. le 21 ok yéen a ko déggandoo ah gars yi nee nañu renvoyé nañu ko ba le 21. waaw. non non tribunal bi moom musul mel pour la première fois. maa ngi nii dëkk fii à côté mais musuma lii ma gis nii maa ngi yëpp mais baax na nag baax na you know ñoom yaawu jaal yëpp ngi fi waaw yaawu jaal a ngi nii tey moom tey yaawu jaal sax ñoom en tout cas lii lii mooy Sénégal lii lañ leen wax rek voilà defe naa ña fa ne aussi bees ñu fàttali leen ne gis ngeen suñu gan yi bi ngeen fi gis sénégalais ay gan lañu ci suñu dëkk donc jàppale leen intéressé nañu torop torop torop torop torop jàppale leen leen ñu am liggéey ñu am këyit seen mbir jaar yoon tappale nag moo war a jeex ci réew mii voilà tappale bi moo fi war a jeex voilà jub jubal jubbanti rek sëpp voilà ah déet ah déet ah leen seen waay yow ma bi macha allah yow sa taxawaay rafet na ñu ngi normal loolu normal. xam nga kenn ku nekk ci ñun rek. bu amee jafe-jafe ñëpp ko war a ñëw taxaw parce que adduna noonu la. te surtout suñu frère bi ñun ñëpp xam nañ ne liñ koy jiñ ñi ay tappale dong la. voilà donc dañu ñëw taxaw ko incha allahu rabbi ba yàlla dimbali ba delluwaat ci njaboot. waaw yàlla ko yàlla may ndam. merci jërëjëf merci. suñu frère ah, ñu gis si kay ñu ne ñu du ne fàng kenn du ko jeex yéen a koy gis lima gis ngeen gis mom la ñepp gis mais li ñu bëgg wax rek moy le 21 août insha allah rabbi le 21 août lañu ko wowat pour mu présenter li nga xamne ne moy kaam te gem nañ ne insha allah rabbi lolu bu amé dinañ ko akité bu ñu kër non mu ñu jël dogal xam nga avocat bu ñëw pour la première fois pour présenter sa cas juge day bëgg xam kan moy avocat bi ak ki ñuy top ak luñ koy toppee mais mënul jël dogal donte suñu réew Sénégal sax noonu lay doxee léegi tey présentation la rek kenn ku nekk nga xam kan mooy kan ak lu ñuy toppee lan léegi nag dafa am fii lu tudd grand jury ñoom ñooy xool ndax dañ koy indaay indaay bi tamit beneen procès loolu nag buñ ko indaayetee jàll nañ ci yàlla musal après mu soog a dem ci àtte bu mag buñ ko indaayitul nag mooy acquitté nañ ko ñu bàyyi ko mu ñëpp way loolu ay tappale la voilà non li may expliqué ma ne gars yi il faut ñu xam ne tey présentation la maanaam tey boo ñëwee ci koot li ñuy def mooy waaw li ñuy def ci koot mooy dañuy présenté lépp loo xam ne moom mooy kenn ku nekk li nga xam ne lan moo la tax a jóg dañuy indi avocat procureur ñëw juge bi taxaw mu laaj leen seen client seen client toog léegi tey du présenter preuve présenter ñi nga xam ne la rek ñoom ñoo ñëw ak lan lañ koy toppee. léegi nag dafa am lu tudd grand jury yi grand jury bi bu ñu dajaloo. waa ji dañ koy woo mu ñëw pré mu ñëw wax li xew. procureur bi tamit wax li xew. léegi grand jury bi bu fekkee waa ji li mu wax doy na leen ak procureur bi li mu wax. bu fekkee waa ji la gëm dañ koy ne kii de mënuñu koo indict. dañ koy bàyyi maanaam lii duñ ko toppee dara. dañ koy bàyyi mu ñibbi. bu fekkee dañ koy toppee dara dañ koy indict. indictment nag buñ ko defee ci la avocat bi di continuer ba ci atte bu mag ba ku nekk indi preuve ne moo def ak defu waaye bu ci yàlla àndee comme niñ ko gisee nii incha allahu rabbi le 21 rek sénégalais yëpp ñëwaat fi 9 te gëm naa ne. incha allahu rabbi grand jury bi du ko du ko du ko topp. voilà. Eh, voilà. Eh, xam nga discipline moom tey du waxu discipline. tey waxu at la. xam nga tey moom lan lañ fi ñëwee mooy supporter suñu frère bi fi ne. te xam gëm naa ne dinañ waxtaan ci suñu biir. ba gën a defar mbir yi daal. loolu mooy. jërëjëf voilà merci. na mbooloo mi yokku na mbooloo voilà ok voilà voilà. ok. ok waa gars yi gars yi gars yi gars yi wuyu ma yéen ñëpp jaaree leen nañu bàyyi yoon bi fii attekaay la waa gars yi nañu bàyyi yoon bi ñëw leen ñëw leen ñëw leen côté bële bàyyi leen yoon bi bàyyi leen wuyu ma bàyyi leen yoon bi pour ñu bëgg atte ñëw atte bu dul loolu beneen yoon bu ñu ñëwee dañuy jox ay jafe-jafe pour dugg voilà nañu bàyyi yoon bi nañu sëñ bi sëñ bi sëñ bi ñëw nga de. loo ndekkee ah? allahu rabbi. waaw noo gisee mbir mi nag. Mhm. waaw nañu demee nii. gars yi nii kaay ñu jël benn côté. kaay ñu jël benn boor benn boor. aca nañ def nii. voilà def leen nii. <laughs> soo yow murit naa <laughs> macha allah macha allah. ah ñun bëri na sama Ba la acca acca gars nañu demee nii nañu demee nii gars yi nañu demee nii voilà gars yi gars yi nañu nañu may voilà nañu leen jaar nii sali def leen nii dem leen côté bële voilà nañu clarifier nañu nañu nañu kii fii kaay nii nañ demee na le bàyyi nit ñu jàll nañ demee na le voilà demee leen nele nele nele nele acca guys dañu demee nele dañu demee nele waaw demee leen nele voilà dem nele voilà nañu demee nele grand nañu demee nele acca yow jàllal nga dem kaalaw waaw après waaw ah, jàllal jàllal jàllal excuse me nañ demee na le gars yi nañ demee na le nañ demee na le nañ leen may seen yoon ñu def seen liggéey nañu yombal liggéey bi voilà merci beaucoup nañu yombal liggéey bi thank you jërëjëf bonjour nañu yombal liggéey bi rek voilà jërëjëf jërëjëf kaay leen nii ñu yombal liggéey voilà alaaji Seexaan waaw sànni ci ay kàddu waa di lu rek euh, sénégalais yi teew bi ñu ñëw teew nii di wax ne lii comme li ma wax démb rek si jub maanaam ñun fii ñun ñoo war a jàppale suñu bopp dëkk bii du Sénégal bëri na problème américain du bopp du xarit boppam rek loolu ñoom loolu la ñuy dund léegi nag ñun comme ay étranger lañ ñëw fii doon fa ay gan nañu moytu may leen kii mu jàll def leen yoon may leen yoon may leen yoon gars yi xalli leen eh, kii bi sidewalk bi please the sidewalk free leen sidewalk mbir mi lenn lenn ci gàttal. nañu dugal xaalis ci numéro bi nga xam ne moom lañ joxe. Uh-huh. parce que lii xaalis moo koy saafara fii lépp xaalis buñ la jàppee. Uh-huh. boo tooñee boo tooñu ndaw si fu mu toll bu nekkee ne dem na ba ba mu ko leen na ne dafay wén keesam tamit xaalis moom faw mu uh-huh. kon nañ ci jàppale ci ay avocat état bu Sénégal nag. ñoom laay waxal bu ñaar état. doom sa doomu réew moo tax. état bu Sénégal la dugal si lii loxoom. ñun dañuy góorgóorlu nii rek. pour jéem see jàpp. ñoom seen bopp nañ génne xaalis ñu ñëw def si lii. parce que doomu Sénégal la. doomu réew mi la. parce que kii fi mu nekk nii yaakaarul ñun ñu de. xëy na ñun dañ koy sot nii rek. mais état kese moo mën a taxaw si lii. nañu def parce que état la mooy njëriñu état la mooy njëriñu consul la mooy njëriñu ambassadeur mooy bu sa doomu réew amee bitim réew problème ngeen dimbale leen Sénégal yaay feet jële si kaso yi ñu ngi Maroc ñu ngi Turquie ñu ngi fii si dëkk bi man su loolu laa doon yëngu loolu mooy dëgg la dañ leen fexe ñu génne kii kii am na ñoo xam ne ñuy commentaire naan ay dañoo bëgg jigéen ak nañu bàyyi caaxaan yooyu bu ñëwee waaw mu kenn mënu see mucc mm-hmm. bu dul jigéen di leneen mm-hmm. fii lu nekk la nit mën a am problème mm-hmm. solidarité bi ngeen def nii nag ñëw bu leen ko bàyyi dëgg la kenn ku nekk na xam ne tey mën nga ñëw fii ëllëg yàlla ñu si yàlla musal ñu ñëpp mais ay nit dong ñëw gis ngeen ko gis ngeen seede bi tey voilà. comprendre ngeen ñoo taxaw teew dana am lu mu joué si ki nga xamante ni jàpp nañu ba bu ëllëgee mu mën a même buñ ko tëjee ab peine sax fa mu toog dana tranquille xam ne samay mbokk bawuñu ma. Mhm. mais bu ngeen ñëwut ñu li ñuy laaj joxewu leen ko day wéet rek comme mu nekk ne day am ay problème te fii dëkk bi kenn ku nekk saa boo xëyee da ngeen dugg terrain sax ngeen dégg ne du am na ku ñu doon doon man koñ bu ma dëkk doo toog semaine rek ñu fa nit te tam yow mën nga am na sénégalais bu doon boo xam ne sécurité la doon def fu mu toog benn waay génn doon di rey keneen jaawale ko doon ko bal lu ne am na fii comprends ngeen kenn ku nekk si dëkk bi nañ moytu rek mhm. kenn ku nekk del moytu boo xëyee jërëjëf loolu na ma si compte bi dugal leen ah, si joxal ma Fall joxal ma Mafal garde ko après rek boo boo ko gisee gardel gardel xam waa ji nee na waa ji dafa am mental am na ay papiers papiers yooyu noonu ñu koy gisee postal bi. loolu waa ji moom ñu koy moom la def. Ah, mooy 551 la 275 43. 275 43 mooy 551. 238 du doy. wax dëgg yàlla atte atte day yàgg de atte atte day voilà ko da nga war a jàppale nit ki jàppale njabootam ginnaaw bi mu nekke ci parce que mën na fee def at at rek balaa atte eh, balaa atte nag eh, balaa atte waaw eh, balaa ñu lay atte c'est parce que da ngay da ngay calculer ne ak Amérique ni mu réyee mën nañu am un million de cas par jour dëkk bi noonu la magee donc cas bu jàllee nii balaa muy jàllaat dina mat weer balaa muy jàllaat mat weer première fois bi nii la mat deux semaines wala une semaine waaye incha allahu rabbi yàlla mën na def aussi mu dem ci grand jury ñu acquitté ko grand jury bi ne duñ ko indaay mais bu ko grand jury bi indaay te mu war a dem trial man na def un an ndax defe naa avocat bi ki ki mu présent ki mu représenté woon balaa kii gis nga bobu ni mu demé amon na ndam donc dina ci am ndam ndam dina ko am mais ndam li day jël temps bala nga fay yegg donc lolu bay leen ko wel <laughs> liñ koy téye liñ koy laaj moy 1 presque 1 million de dollars garantie ay 750000 dollars lañ ko pour ñu mañ ko bay mu ñibi kërëm di ñëw atté voilà mais lolu euh, xalaatuñ ko joxe da sa laara mané da he doesn't da that mané mais du dara li ñu li li ko dal ni voilà ñu ngi lay ñu ngi lay ziare imam déet yow da nga ñëw taxaw jarul na bu yow da nga taxaw ziar nañ la bu baax a baax a baax rakam bu góor waaw moo ma doon oo léegi di wax ne waa ji lii problème bi mooy dafa amaat ment dafa am mental problème ci Sénégal lu jiitu